waaw gars yi maa ngi jéggalu voilà donc euh, xam naa am naa benn cinq minutes boo xam ne peut-être mën naa ko waxtaan ak yéen donc euh, bu kiiyee rek ñu jéem a wax li nga xam ne moom mooy l'essentiel après buñ ci paree mooy loolu voilà donc euh, suite à la sortie du président Ousmane Sonko defe naa ñun ñëpp dégg nañu kàddu yi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko yëkkati muy kàddu yu responsable mu ay kàddu yu nite comme niñ ko yaakaaree ci moom toujours muy ay kàddu yu jub waaye dañ leen bëgg a yëgal ne man lii nga xam ne loolu la président Ousmane ko jël tey man moom laa mas a d'accord depuis mille neuf cent un bu manee nee mille cent un donc euh, ñu bari ci yéen xam ngeen fi may waxee maanaam depuis ci njëlbeenu mbir mi parce que boo nekkee ak état bu délinquant état bu bandi bu saay-saay bu wëyu ñun daanaka sax yor ñu état cartel la ñu yor maanaam cartel mooy benn groupe gangster drogue dii la parce que Sénégal nag liñ fay dugal ci drogue bari na si sa loo wax na leen ko ak yeneen Sénégal mooy réew moo xam ne amul loi kumba am ndey kumba amul ndey boo àndeek nguur gi ñu ànd ak yow boo àndul ak ñoom ñu instrumentaliser seen justice ñu yàq sa àddina ñoom ci loolu lañuy dox donc ma kontaan trop ci li nga xam ne moom la président Ousmane Sonko jël tey comme taxawaay vraiment ma koy saluer di aussi waxtaan ak sénégalais yi pour ñu mën a jël suñu ay responsabilité te ñu xam ne euh, devant l'injustice résistance résistance yee ñu ñu ngi round a koona They're around the corner, a little live video. Oh, donc dama ne ñun suñu logique gatsa gatsa la maanaam pour ñi ko xam gatsa gatsa mooy nga luqi sa ma bët ma ma luqi sa bët dagg sa bopp nga. xuri ma ma damm sa baaraam ñun loolu mooy suñu logique mais ku ñu deful du ñu dégg donc le président Ousmane Sonko comme bépp sénégalais on a pris nos responsabilités pour patriote patriote yi ak fu nit war a nit mën a nekk nañu jël suñu ay responsabilités te ñu xam ne comme ni ma leen ko waxee cooki fin dafa jot. heure dund du heure dee heure dee du heure dund il faut que les sénégalais ñu mën a fee eh, def la différence des choses benn nit bu normal waratul mën a taxaw ci àddina ngay bàyyi ñu lay sacrifier waxatuma laag le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko c'est un leader d'un projet un projet qui doit changer notre pays un projet qui doit bâtir nos futurs donc kenn ku nekk ci ñun dafa am responsabilité war a am taxawaay boo xam ne moom ngay taxaw muy nappkatu jën bi muy artisan bi muy jaaykatu keccax bi muy jaaykatu dàll bi muy dawalkatu taxi bi muy dawalkatu lu mu mën a doon ci Sénégal on a tous des responsabilités pour barrer la route à Macky Sall et son et sa forfaiture et son banditisme gis nga buñ ko deful dinañu am lu ñu naqari waaye buñ ko defee billahi wallahi dinañu dagg buumu njaam bi ba fawte dootul amati xam leen ne sénégalais yi danoo sonn les sénégalais sont fatigués sénégalais yi danoo sonn dee nanu sonn nanu dee nanu naka nga mën a nekkee ci ab réew ay band yor réew mi rek nguufaan ko ne kenn du wax ku wax ñu jàppale tëj la ci kaso bi comme ni ma leen ko waxee les patriotes demain suba ñu ngi tàmbali grève de la faim patriotes yi en solidarité ak dictature ak forfaiture ak tappale bi Macky Sall di def mais les patriotes suba ñu ngi tàmbali grève de la faim lan moo war a tax ñun ñuy toog di xaar Macky Sall muy dérouler di jël ay juge di leen instrumentaliser pour ñuy daan ay nit pourquoi ñaata sénégalais ñoo nekk ci ay liste mane jal leen seen bitik seen butéel ngeen defar seen i njàmbaan I ah, didn't know. Call <laughs> Lamin, Lamin. Yeah, he's not picking around the corner. It's the same building. They're around the corner. Yeah, yeah, the same building. Okay. Alaikum salam wa rahmatullah. Ziar nala. Comprends bien. dama nekk ci vidéo tuuti nag bu ma paree ma ñëw nuyu leen bu ma paree maa ngi pare léegi voilà donc amul benn nit boo xam ne dafa war a taxaw nangu injustice bi nga xam ne moom la ñu Macky Sall di teg nanguwuñu ko tey nanguwuñu ko ëllëg te duñ ko déglu amul benn nit bu koy déglu nag du ñu nangu benn yoon Macky Sall jàpp réewu Sénégal bi otage moo tax ñuy woo patriotes yi pour ngeen pare xeex manta ñàkk suñu digganteek Macky Sall parce que c'est des personnes désespérées ay nit la ñu yoo xam ne seeni pexe moo jeex ay nit la yoo xam ne dañoo jaaxle xamatuñu fu ñuy teg seen tànk c'est des personnes désespérées nañu taxaw faire face à cette injustice bu ñu nangu encore une fois tappale yi nga xam ne ñoom ci la ñuy dox ñu continuer cee dox di fontoo le président Ousmane Sonko non duñ ko nangu et je pense que dans les jours dans les jours qui viennent qui suivent nañu jël suñu ay mesures de face maa ngi leen di dànkaafu nag Macky Sall ak ay bandem bu ma doon yéen ngeen bàyyi prisonnier politique yi ngeen di jàpp ngeen bàyyi nit ñi ñu génn ndax li ñu yor ci marem bis bu génnee waxuma la déjà Sénégal mooy yëngatu waaye dina tas te ñu ngi leen di dànkaafu rek nangu leen déglu bu yeboo nga nekk nit boo nekkul nit bis buñ fi génnee marem ak yooyoom Sénégal dina tas ñu wax leen ko da ngeen yabaate nag réew waaye bis bu ñu jógee ci yéen di ngeen xam ne lépp dëgg la les Sénégalais ne vont plus accepter la dictature du ñu nangooti ay forfaiture wala ay yabaate c'est fini wax nañ leen président Ousmane Sonko wax na leen ko nee na leen yegg na ci raay ba raay ba na yeggatul dootul wuyooti benn juge boo xam ne Macky Sall moo ko commandité ba fan yëpp ñu ngi dégg Sall di interviewé ay juge mel ni kuy jaay ay jaaykatu keccax di wër juge yi ko condamné la président Ousmane Sonko fan yëpp Macky Sall ci loolu lay dox fan yëpp Macky mi ngi recevoir suba guddi ngoon bëccëg Macky mi ngi recevoir ay juge ay magistrat maison clé en main ba pare jox leen alal pour ngeen condamner le président Ousmane Sonko on on a on on connaît tout mais du wuyooti c'est fini yegg nañu arrêt ba fi mu ne nii gat sa gat rek boo leen amee fit nag te gëm naa ne amu leen ko il faut essayer boo leen amee fit ngeen essayer boo leen jegee président Ousmane Sonko lu tolloog tarfatal ay ni ñu def ko noonu seen ndey yi ñàkk jom yi ngeen doon tekkiwu leen dara ñu ngi leen di xaar la jeunesse préparez-vous restez debout e préparez-vous nanu pare xeex bi mënta ñàkk nanu pare sa combat ça doit se faire et le combat c'est amul ay deux mille vingt quatre amatuñu fu ñu xaar Macky Sall ak ñoñoom le combat c'est léegi lañ koy tàmbali c'est fini avec ce banditisme de ce régime kenn dootul nangooti Macky noot ñu c'est fini loolu jeex na gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu